asalaamaaleykum euh, mbokki internet yu euh, Sénégal TV euh, dalaat leen jàmm ci seen émission amul tabu émission amul tabu nag émission la boo xamante ne ni dafa garaawa garaawa garaawa garaawa garaawa garaawa garaawa garaawa ba suñu invité bi muy commencé di ree ndax ni émission bi garaaw moom Italie la nekkoon wala boog nekk na Allemagne nekk na France di seetaan émission amul tabu ñu naan dafa garaaw a garaaw ba yàlla natu ko tey mu ñëw si émission amul tabu boobu war a ñàkk tabu li nga xamante ne nii moom la dund bitim réew ak boroom këram ba tax mu ñëw fii nii pour wax ko fii. émission amul tabu nag yàgg nay jox ak moom depuis bitim réew muy am loo xamante ne daf ko doon dund foofu muy metti lool lool lool lool lool lool mu bëggoon di participer si yenn émission yi ba yàlla dogal tey mu ñëw Sénégal ni mu ñëwee lan moo ko indi loolu tungu ne du teew ñuy nataal waaye nag balaa ñuy dugg ci émission bi dina ko xamal ne ko na xalaat bu baax a baax a baax a baax a baax parce que kat émission bii nii ba ay sëtam ak ay sëtaati sëtaati sëtam mun nañu ko seetaan donc comme ni ma leen koy waxee rek un homme averti en veut deux naxuñu kenn dugal ko suñu émission am ñàkk ñu xamal kenn dugal ko si suñu émission déedéet waaye nag nit kii dafay am droit à la parole dafay war a exprimer wu wax li nekk ci moom lu ko mooy rek alors mun na ko indil ay problème yu bëree bëree bëree bari moo tax léeg-léeg dañuy jàpp ne porte presse moom mooy gën sax porte plainte maanaam wax ko ba àddina bi yépp dégg ko mu génne si ñoom li nekk si ñoom maanaam

ndax émission yi dama ko yàgg siiw daf ma neex liñ ci waxtaan yi am solo moo tax ma dina ma neex voilà. parce que ñun dañuy waxtaane ay ay ñamax ñamaxeex yooyu de daan nga dégg ñamax ñamaxeex yooyu. waaw yëpp daan naa ko dégg. da nga koy suivre bu baax ba jóge ba foo jóge nii Italie ak Allemagne. Italie laa jóge nii mais def naa Allemagne def naa France def naa Belgique aussi. donc. émission amul tabu rek moom émission amul tabu waay le public bu mag lañuy dajal mon dalal pour ñu euh, témoigner li nga xamante ni à une yi li xew lan mon la indi ci émission amul tabu. li ma indi ci émission bi mooy dama gis ay nit di fi def seen ay émission di ci wax seen ay leen li ñu a dund. ma gis nii bu ñu ko defee euh, fi ñuy mujje mooy que ne dina dinañ am liñ ci bëgg voilà loolu moo tax ma ne naa ñëw kii ko fi naa fi ñëw wax si li nga xamante ni loolu laa dund ma nit comme si que ñeneen ñi fi jot a jaar li leen li ñu fi amee man tamit euh, yàlla dimbalee ma ko fi ci maanaam feex li nekk ci sama xol giif dalalee fi sama xel daal voilà donc euh, pour dalal xolam mom motax mu japp ne ñew porte presse mom xalaat la bala ma lay dalalaat si émission bi est ce que xalaat nga li nga nara def bala ñuy commencer parce que suma amon luma gënal do porte presse mais da ngay porte plainte da ngay dem waxtan ak sa famille ak ñi nga xamanteni ni ñom nga sexal problème bi nga waxtan ak ñom disok ñom parce que li nga xamanteni ne da nga ko nara wax adna bi yépp yékk ko amana ba sax la nga ci bëggoon doko ci am

Eh, yëg nañ li may dund tax dara ump leen ci mais mësuma gis ñu def benn réaction boo xamante ni nii saa su ma melu ma metti su ma leen ko waxee duñ duñ ci sax fi ma waxee ñoom su ma coupé sama téléphone boobu lañ koy fàtte depuis boobu ba tey maa ci nekk nag sa fi 10 ans wala 11 ans de mariage mais toujours nii la Sénégal la commencé Italie France Allemagne Belgique son coono mom daal la def loolu moo tax. Euh, son euh, coono mom la def si luma mu dund pendant 11 ans alors mu commencé Sénégal ben ni mu démé bitim réew muy continuer di dund loolu néna say bu si waxtaanee ak ay waajuram rek ñu jël wax ji ba coupé téléphone korok la ñuy faté né sax mbir mi amon na man mun naa xam tuuti si li loolu li ni mel. parce que boo nekkee bitim réew di dund yenn jafe-jafe yi ñi ko tudd ñoom ils s'en fout xanaa xaalis bi daf doon ñëw à chaque fois wala ki nga sëyal sa mbokk la ndax da doon cressé maanaam jaar sa waajur yi fi nga xamante ne ni yow jaaruloo fa daf leen doon jox xaalis wala. non non sans contraire samay parents ñoo may jox. say parents ñoo lay jox ba nga jógee fii dem bitim réew ñuy continuer di lay jox wala. waaw ñuy continuer di ma jox parce que sama première voyage njëkk a def jóge Italie ñëw te sama jëkkër moom ma yebal pour ma ñëw Sénégal tey biir yebal bu ma yebal mooy que ne dafa liggéey ci wàcc ñëw ni ma dafa nuyoowul sax dafa dugg si tijjil boppam sonewul ba ma tijjee ko mais dafa yoroon caabeem dugg nuyoowul ma laaj ko lu xew waxul dara ma indil ko ndox mu ne doy na jékki-jékki ne ma faaw nga dem Sénégal ma ne ko pour lan mu ne ma faaw nga dem Sénégal ma ma nangu ndekete dem bi moom préparé woon na ko lu jiitu mu koy wax.

yaa ngi wax li mu la def mais waxaguloo ba léegi lan nga ko def la nga ko def. su ma ko xamoon wax ko loolu moo ma jaaxal benn instant damay toog ne mbëggeel daf amatul wala lan la te pourtant ñun ñoo génn sept ans bi ñuy génn man mën naa ne boobu ay douze ans laay am douze ans laay am parce que man maa ngi le 9 septembre 1987 waaw moom ay 2002 yooyu. kon xam nga loolu yàgg na voilà te tamit mariage bi ma ciy dugg mooy que ni li ma gisoon ci moom li ma wonoon ma ñeme ko loolu moo tax ma dugg ci te su ma xamoon su ma ci duggee lii daf ma ciy fekk dama ci du ma ci dugg voilà. donc su xamoon li ma ko def tamit dama koy wax. Euh, bu xamoon li nga xamante ne ni euh, moom euh, la ko jëkkër ji moom la def jëkkëram moom daf koy wax waaye ñàkk xam li nga xamante ne nii moom la def jëkkëram moo tax xamul benn léegi li xew mu jàpp ne dafa war a ñëw ci pénc mi daal di koy waxtaane ñun lan lañ la mën a apporter di tax nga xalaat ñu ñun est-ce que dañ laa mën a dimbalee dara lan lañ la mën a dimbalee pour yow maanaam ñun lan lañ la mën a defal lu dul weer la rek àddina bi yëpp xam ne am nga problème mënuñu si leneen léegi est-ce que ñun am na leneen lu ñu si mënul yow ah est-ce que ah est que yow xalaat nga ne ñun am na lu ñu si man est-ce que yow dem si say wéyjur ngeen toog waxtaan gënul balaa ñuy jël émission bi di koy wane ci àddina bi yëpp parce que ñun mënuñu ci dara amul benn solution boo xamante ne nii mën nañ ko apporter lu dul li nga xamante ne nii dafa waroon a yem ci biir néegu sëy ñu jël ko tas ko ba àddina bi yëpp yëg ko ñun lool rek lañu si man après du def lu dul gën a yàq mais amul lenn lu nga xamante ne nii daf koy defal

ñàkk ko def mom mo gën fouf def ko parce que tu sais pourquoi parce que mom tay ji ni amana na ba bu la taaloon yow télévision comme télévision pour ñu sétane la kenn du sétane une minute te fayu la parce que am lu ko naqari ci yow deug te ñun gisuñu ko mais xam nañ ne amna lu ko metti ci yow comme li li nga xamantene ni yow amna lu la metti ci mom mais mom ñun gisuñu ko pour mom mu wax ñu lan moko ko ci yow mais yow aussi nee nga sa ay parents nanguñu pour moom sëy bi tas donc am na foo xamante ne ni peut-être di nga fi blâmer sa bopp nga ne man war naa seetaat sama bopp est dëggantaan si fukki at ak benn yi am na ngërëm yoo xamante ne da nga koy gërëm wala xarab yoo xamante ne da nga li mu defal si lu bon ak si lu baax lan moo ëpp. li ma ci lu bon lu may wax dama te dafay am ay seede mën na damay teg loo xamante ne day leer nañ ay bët di ko gis xam ne lii. buñ ko defoon beneen jigéen kon sëy bi mën na bañ a egsi fii man samay parent bu ñu bu ñu toppoon ñoom si ay parent wala famille kon sëy bi mën na bañ a egsi fii mais dañ leen toppul dañ leen topp parce que yàlla daa bind te yemale ko nit yamul loolu la toppuñu leen. ay mbokk ngeen yow ak waaj. ay mbokk la. d' accord sëyu mbokk la ñu defar fa léegi mbokk bi yàqu na fi mu ne fi may wax ak yow nii. mbokk gi yàquwul c' est parce que. sama li may wax sama sama famille topp ñu seen famille parce que bu ñu leen toppoon ba mu sës rek kon famille amaana yàqu na tey waaw mais topp ñu leen ci dara ndax boobu ba tey lu ne jaar na fi lu ne xew na fi mais mosuñoo dem interview ci loolu mosul am mosuñoo jug benn yoon la sama yaay mos a jug dem fa te bu mu demee sama goro bu jigéen daf ko dàq daf ko génne ba doomam bu góor sama ma ko jëkkër ni ko kii bu meloon ni yow tey di ngeen jotee gor bu ñëwee ci kër déglu ko ba xam lu ko indi mais daf ko dàq génnal ci biti. voilà donc mu mel ni mbokk gi yàquwul waaye mu ngi ci tànku yàqu parce que koo nekkal fukki ak ak benn ngeen am ñaati bant. am ñetti bant. ngeen am ñetti bant nga ne li mu la def ci lu bon moom moo ëpp ci lu baax. te yow gis naa ne tubaar fakàlla macha allah ah yow moom souffrance feeñu si sa kanam benn yoon lu nga souffrir lan loo wax souffrance. ba mu tax nga bëgg a sa say génne ci affaire bi lan la li ngay wax souffrance li nga dund lu metti loolu lañu bëgg nga wax ñu man benn dama nekk nit koo xamante ni liñ naan doomu ñaay kenn du ko ñaanal rek da koy ñaanal bu du fa maanaam notre famille sont tous. voilà. waaw maanaam yow si famille bi nga bokk daal macha allah. voilà dama nekk nit koo xamante ni tamit duma jël problème di ko def ci sama biir xol mu may mu may sonal. man damay dund toujours. non stress voilà mooy comme muy way. voilà man loolu laay dund loolu laa mës dund. Mm-hmm. damay damay nit day daf may xam carrément xam li may dund mais moom ni ma mel toujours daf koy jaaxal ndax danga may fekk toujours maa ngi bége ak nit ñi maa ngi xàppi du ma ko def sama biir xol du feeñ fenn ci man ba soo ma gisee boo ma xamul da ngay kii amul problème comme li nga wax rek man nii la ma yàlla bindee naturel. ok yaa ngi si émission. amul. amul tabb amul tabb voilà donc euh, soxna si euh, dafa am loo xamante ne nii aussi dafa ma xaw a jaaxal très franchement li nga def sa waay lan la toog nga bis nga xalaat ne man kii day sama borom kër def naa ko lu naxal loolu lan la. su ma ko xamoon dama koy wax. fukki at ak ñi ñi benn yëpp lu neex rek nga ko defal li nga ko defal si lu baax yow moo ëpp si li nga ko defal si lu bon. su ma xamoon lu ma def si lu bon. dama koy wax. yow li nga def si lu baax damay toog di xalaat lan laa war a def lu waral lii. yow li nga def si lu baax moo ëpp li nga def si lu bon. loolu xaw ma loolu moom rek moo ko mën a jugé. mais moom li mu la def si lu bon moo ëpp si li mu la def si lu baax. moom dëkkaloon na la. dëkkal lu ma. amul fu mu la dugal wootu fukki at ak benn si wet bi nga doon fi naan. seen kër laa dem sëyi ji. fukki at ak benn 2007. waaw laa fa laa fa dem sëyi ji. mu dugal la si mbaaru xar wala mu dugal. si mbaaru dugal ma ci mbaaru seen kër. benn néegu magam laa doon fanaan magam bu jigéen bu bokkal ndey baay ñu bokk di fa fanaan magam bu jigéen am ñaari doom man ak magam bu jigéen ñoo doog bokk di fa fanaan moom mu luwe néeg dem fa dëkkul sax seen biir kër mu dem luwe néeg nekk fa man duma man nekk ci néegu magam laa daan nekk pendant pendant ñaata temps nga toog Sénégal bi laa nga dem bitim deux ans yoo xamante ne moom rek moo dëkk si néegam. moom moo dëkk si néegam sa borom sa borom kër moom kese mooy fanaan si néegam. yow ngay fanaan si gàddaay may fanaan ak benn néegu magam yenn saa bu fa yaayam fanaan si néegu yaayam mu ñëw ñu fanaan foofu bu yaayam demee parce que maam mais moom lan moo tax mu dëkk si néeg moom kese yow nga dëkk si si si si sa néeg yow. boobu mu ne mi ngi tabax benn néeg tabax néeg benn néeg jarul diire ñaari at néeg bi daf ko commencé bàyyi ko noonu si kaw a kaw bëgg ko eggalee. ñu tabax benn nekk toujours mu naan maan doo mën a ñëw fee fii léegi mu pare toogal xaar ma toog di xaar. moom mu dëkk foofu deux ans. waaw nga dëkk fii deux ans moom kese moo doon fanaan wala dafa am ñu mu doon fanaan. xaw ma yow aaw nga nga yeneen ñu topp si yow kese nga. yow ak moom kese affaire bi naxari. lan moo naxaril diggante bi noonu lan moo tax diggante bi waroon na tax waroon na neex ak bokk geeg yooyu ñi ci dox te neexul lan nga jàpp ne moom neexul parce que am na lu mu la reproché au moins am na loo xamante ne ni def nga ko da nga doon faroo fii Sénégal da doon faroo Italie dafa am si loo nekk loo xamante ne ni moom neexu ko lan la la reproché lenn da nga ko waroon toggal toggaloo ko da nga waroon toog toggaloo am nga loo def loo xamante ne ni naxari na ko te wax na waxante ngeen lan nga jàpp ci wax yi mu la mës a wax. li ma jàpp ci li muy ci moom moom moom day xuloo góoru xuloo kat la. waaw léegi bu bu buy dàng yu mu lay jam. jógal fii ak cagabee. non cagabee wax non que fekk moom may taxawaal. jógal fii c'est-à-dire. yow da mën la jëlal. lëjël bi mooy lan da ruppi xaalisam bi sàcc xaalisam di di ko jëfandikoo neneen lan la da koy sëriñtu looy looy def lëjël ban xeetu lëjël. sëriñtu man su ma mel ni mooy sëriñtu. dama ko yemale ci sama bopp. damay sëriñtu pour mel mel noo xam te ni ku ma gis bëgg ma. beneen góor bu la gisee bëgg la ku ma gis bëgg ma góor amul góor amul jigéen. ah d' accord bay rek waaw. waaw ah mais est ce boobu boo demee ba sa jëkkër bëgg la est ce que doyul ngay wut keneen bëgg la. mais ki nga nekkal bu la jàppee benn xaj wala benn genre imbécile comprendre trop jaral ma dem ci sëriñ ma. looy wax looy wax looy tudde baat boobu nan jóge fii. defal ak lan ak yan baat. xaw ma yaruwul daal nit la ñaari baat yoo leen wax booy wax di indi jàmm sax saaga lañ njëkk a def. loolu Sénégal la tàmbalee wala. depuis Sénégal sam papa ni lay muyu sa papa def noonu ndeyam sa yi lay nuyu sama koy loolu lay wax. non mais attends est-ce que reconnaître nga dara ci say erreur nga toog bés nga ne man lii def naa ko. toujours damay toog di koy sama bopp ay question. ok. donc public bi amna na droit réplique euh, li ngeen dégg ci waxtaan bi euh, ni la euh, est-ce que amna ko xamantene ni dafa am question bu muy poser par rapport ak li nga xamantene ni mom la dégg. asalaamaaleykum ma ngi leen di nuyu yéen ku nekk sa tour ak sa sant man soxna ci adam lu ma la bëggoon laaj sa jëkkër jooju est-ce que bëggoon nga ko wala dañ leen ko dañ la dañ la ko may ni à base bi nga nekkee xale comme ñu ne mbokk la ñu ne xaaral ñu may la ko. est-ce que bëgg bi am na avant waaw bëgg bi am na ndax ñun ñoo xoolante ba bëggante ñun ñaar kenn forcé wuñu ko ñoo xoolante ba bëggante léegi moo yónnee ay parents am ñëw ci samay parents moom moo yónnee ci ay parents am ñu may la ko waaye ba léegi yow yaa ngi ci émission amul tabu mais dafa mel ni que am nga loo xamante ne ni euh, da nga koy tabu parce que soit. comme lu ngeen di wax Sénégal ndax da ngeen jàpp ne am na loo xamante ne ni moom la def seen diggante diggante bi xajam loo xamante ne yàq la est-ce que mës nga toog nga xalaat ne dafa am yàq-yàq yoo xamante ne dañ koy def sa diggante yow ak moom pour diggante bi naxari est-ce que loolu mës na la traverser l'esprit. lu jóg li nga xalaat ne nit moo ko def wala bokkuma ci. nee nga aussi euh, bu doon ne émission bi dafa nekk émission boo xamante ne dañuy woote. tey jii nii ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo dëkk ak yow ñoom dinañu seede sa diggante yow ak waajooju noonu loo xamante ne ni ñëpp dinañ xam ne yow sëyal nga ko ba géej ah n'est-ce pas waaw léegi loolu foo sukkandiku nit ñi nga doon sëyal wala moom nga doon sëyal est-ce que si biir néeg bi da nga koy def loo xamante ne ni naka sa noonu la boo génnee si biti nga sukkal ko bu la gisee nga sukkal keneen mu jaaxal ko parce que yow mosoo ko sukkal mosuloo ko defal lu ko neex mais mbedd mi ngay seyal ay wujju peccor ko ak say gorook say dëkkandoo ñëpp xam ne yaa ngi sëy mais ci biir néeg bi yaa ngi def yoo xamante ne ni naka sunu dul noonu la est ce que loolu dalu la si sa sëy waaw ndax bu ma jug pour sëy da bañ may maye dama jugoon pour sëy kon bu may jugee pour sëy moom bi ma takk moom laay sëyal ñeneen ñi ci bokk dañ cee waal mais taxuñ ma woon jug voilà ñi si s ñi si euh, ñeneen ñi euh, dañu see wàll yaan waaye taxuñu ko yëpp léeg-léeg jigéen ñi dañ koy wax ah comme li nga wax nii mais euh, am na benn waay boo xamante ne ni ku ma jege la ku ma xam la jabaram fi mu nekk nii dem na seen kër te def nañu ñaar fukki at ak ñett moom ak soxna si mu defar soxna si teraanga yu nekk compte bancaire 20 millions moom la tijji bi muy dem bitim réew koro ba muy dem commissaire Anna dafa ne ko

femme ba ba muy dem dana ko mosuloo ma defal dara amululoo benn njëriñ mosuloo ma amal benn njëriñ dangaa dof léegi famille yi jël jël nañ ko yóbbu nañ ko njëpp ñëpp di wax ne waa ji moo tooñ parce que femme bi dafa doon sukkal waa mbedd mi dafa doon wane si kanamu nit ñi ne mu ngi man xam naa ne mosul sëyal jëkkëram parce que jëkkëram nangul na ko doom boo xamante ne nii jëkkër ba juru ko te kenn mosu ko yëg te loolu mosu ko wax defal na ko teraanga bu nekk waaye femme bi bu muy génne dafa wax wax ju ñaaw sama jëkkër moom wax caga dem waxe ko ba ñëpp jot si waaye waxul la ko jëkkëram nëbal doom ba nga xamante ne ni moom xam na jëkkëram xam ne jurul doom bi waaye nag mosul wax loolu noonu est-ce que bokkuloo si jigéen yooyu noonu. daree àdduna jaraluma ko masuma wax ca la xas la wax ma ca la am. waaw léegi métital yi bitim réew. Talla dafa la doon dóor dafa doon dóor xale yi dafa la doon yeew dafa la doon sëye ak ñeneen dafa la doon sëye neneen noo xamante ne bëgguloo ñu sëye la ko. xam nga daf la doon yeew daf la doon takk est-ce dund loolu. déedéet loolu la def ma ko mais door moom daf ma ko def depuis Sénégal ba fee fi ñu nekkoon Italie <coughs> France interview euh, police ñëw na fa ñetti yoon Italie noonu. yow da doon liggéey bi nga nekkee foofu. mosul nangu ma liggéey. moom moo doon liggéey ñëw di lay jox. kooku yor na la. dama doon létt mhm. dama doon létt. kooku ku baax la yow ku baax nga may instant yi. waaw ba tey bonul moom ma yóbbu foofu bi ma fa yóbbu wax ma dara ma laa ko laaj ba mën naa liggéey mu ne ma defal sa bopp ne liggéey andiwu la fi bi ma waxee loolu ci laa génnee sama xel ci liggéey andiwu ma ma def li ma wax comme sëy la ma wax ni ma gën na toog di sëy su kenn ñëwee. si moom lay ñëw ni ko dafa bëgg a leetu xawma fa kenn du nangu ma génn nangu ma am foofu xarit nangu ma xam fa kenn moom mooy dem duggi ji même su xorom manqué moom moo koy dem jënd ji ma toog ma ne bëgguma xam fenn su ma xëyee def li ma war sama biir kër def li ma war lépp su toog jotee ma toog xaar ko mu ñëw li ma war ma ne ma nekk si li ma war loog moom toujours dama siy nekk su ko su ko yëgee ak su ko yëgul toujours dama siy nekk si parce que man la war lu ma tere liggéey ma toog su kenn bëggee def si moom la jaase parce que moom moo xam ne ñi moom mooy génne mooy ñëw dina am fi ñëw tey su ñëwee nga tijjil ko nangam la tudd tey léttu génne photo bu war su su ma ko lettee ba pare su ñëwee luñ ma jox lu ma mën ci tool su ñëwee ma teg ko si loxo mu jël du ma si jox un centime man tamit damay bàyyi noonu mosuma def sama xol ne lii sama xel ne lii mën naa koy liggéey wala dara dama jàpp ne rek sama jëkkër ko moo ma ci àndi li ma def loolu laay wax. li ma wax loolu laay ma continué nekkee ak moom noonu nekkee ak moom bu fii lu ñu fay si ba ma amee doom lu ñu fay si xale lu mu doon su ma ko jëlee parce que foofu dañ koy def si tur yaay su ma ko demee jël su ma ñu jox. yére bi nga sonni kan moo ko jënd. yére bi moom yàlla def na ne sama xaalisu papa la jar. sa xaalisu papa la léegi chaîne bi nga takk kan moo la ko jëndal. yàlla def na ne sama mag bu góor moo koy defar. jaaru bi nga takk nii fu mu. yàlla def na ne sama mag bu góor dàll yi. yàlla def na ni sama mag bu jigéen moom ko jox. saag bi. yàlla def na ni maa ko jënd. kon waa ji 11 ans yi defalu la dara. am na lu ma defal. lan la jëndal na la kër utal na la terrain. déedéet utal na la lal. jëndal na ma lal boo xamante ne 1 million 50 mille lay jar. 1 million 50 mille. waaw waaw. ma tëdd si un mois. yaayam démonté ko jox ko magam bu jigéen mu monté ko ci néegam coow loolu. di wër ba tay ci démb rek la ko ay nit mu mujjee wax. ah man xaw ma ne affaire laal bi am na tamit baal ma àq nag. am na la dama dama dama dama dama rek. léegi man utal na la armoire. Sambara ak Poussé nekkoon lan la armoire ak coiffeuse mère bi moo ko demoon te sampal ko doomam bu jigéen ba tay ji ma toog leen xool. léegi su xëyee tëdd si kaw man ma lal mat laa tëdd si suuf avant may tëdd may jël am mat laa ay sër laa doon lan di tëdd si suuf. mais est-ce que mère bi nga amal problème réellement est-ce que li nekk si jamono est-ce que soxna si euh, sa jëkkër nga amal problème réellement est-ce que lu nekk tey si jamono maanaam nit ñi dañuy bëggante comme ñooñu ma lay wax noonu ay waajuram ñoom ñoo ko oo ne ko ñëwal mais soxna si jëlul woon décision dem si souvent nit ñi dañuy bëggante mais léegi famille ñoom ñooy ñoo dul bëgg bu ñu demee ba bëgguñ ñoom dañuy bëgg affaire bi tas yow est-ce que da dund situation bi est-ce que du sa jëkkër bëgg na la fa léegi. bu bu bëggee ba tey tamit wanewu parce que li muy def nekkul ku bëgg. ah yow da nga mu lay dawal comme xaj la raamal. di la di la kii xam nga loolu lan bëgg loo gis si moom loo xamante ne ni jàpp nga ne doxalewul comme koo xamante ne ku bëgg la. parce que souvent yéen tamit da ngeen di bëgg da ngeen di am ay caprice seen caprice yi est que yow da ngaa capricieuse de trop. waaw loolu moom yàlla def ko si lan moo waral moom ki parce que ki la jëndal euh, euh, ensemble un million cinquante mille kooku bañalu la dara ah am nga armoire yére jënd mos na la jëndal ay yére. dem naa sëy ji bi may dem sëy ji ñetti valise laa yóbbu seen kër dama sëy ji tombé kas rajab kii moo doon ñëw tabaski tabaski mosul jot xotti ma sama kër papa mosul am tabaski bo xottiwu ma dama ko laaj. mu ne ma yoruma xaalis ma bàyyi. 11 ans yi defalu la dara jëndalu la yëre buy jar cinquante 000 jëndalu la yére buy jar. mosul am mosul la jëndal yëre bu jar 50 000. yàlla mi ñu tiim xam na ni mosul am. 11 ans yëpp. yàlla mi ñu xam na ni mosul am. man jàmbaar laa de daan naa joxe cent 000 par mois wallaay wallaay te dañ dama dañ dama defaloo ma dara. sans contraire man man kenn du defal bu baax. mais dégg naa ne ñaari saak ngeen yoraan ah, saak bu bon bi ak saak bu baax bi mais da ngeen di jël si bu bon bi ngeen di dugal affaire yu baax yi muy wadd mais beneen saak bu bu baax bi nag fa ngeen di dugal affaire yu bon yi bu ngeen kiiwee rek génne ko waxee ne defaluñ ma dara defaluñ ma dara defaluñ ma dara. su amoon moo am. parce que 11 ans yow naxaat feeñu sa kanam ah, très sincèrement stress feeñu sa kanam. man damaa jàpp ne damaa jàpp ne ah bitim réew xam nga liggéey ji ñëw problème yi ñuy jànkonteel foofu nga si néeg bi xamuloo kenn coono yooyu nga xamante ne moom ngeen di jàpp est-ce que du stress boobu moo leen jàpp est-ce que boo demee bi nga ñëwee Sénégal ak léegi ça fait combien de temps. mat matagul deux semaines wala si lay yem. ah deux semaines trois semaines. ci yooyu lay toll. si yooyu lay toll est ne boo demee ba def fi deux mois trois mois la daloon femme ba femme ba Tambacounda la mere kër oto femme bi mu lay wax ni ne dem na kër yaayam moom kër jëkkëram ak kër yaayam ça ne fait pas cinq cent mètres. donc pour mu dem facilement kër yaayam dafay yomb ah gedd dem donc femme de moom Tamba la mere dugg si oto bi ne dafay ñibbise Dakar pour tas mais bi oto bi dawee ba ay une heure de temps yooyu mu mu yeewu mu ngi si oto bi fàtte sax li ko taxoon mu mu xalaat ne <laughs> moom dafa meroon rek mu jël bagage am di delluwaat këram est-ce que du boo toogaatee Sénégal un mois deux mois trois mois quatre mois sa xel du sa waaj yàgg naa see bëgg a génn ñàkk ndimbal ku ma accompagner pour génn ci sëy yàgg naa see bëgg a génn parce que dama sonn. est-ce que réellement xalaat nga ne fi mu nekk ni jot na pour nga génne si. jot sëkk. est-ce que dafa am beneen waaye bu la jox juróom si wet gi ne la tasal ma takk la. maa ngi si bu ban waay moo ñemee tax sama kanam di ma wax loolu dama yor njaboot. est-ce amuloo koo waxaaleen ba pare foo teg sa tànk ba pare. door a mën a xalaat ne yow da war a génne si buum parce que jëkkër yomb laa ki lay fooye moom mun na yomb. su ma génnee si kii man suur naa góor ndax moom. am na ñu ko waxoon de. waaye maa suur góor xale ñaata at nga na ñu amoon 45 ans ñii 60 ans nag waxoon ne suur naa góor waaye ñu ngi wër góor si mbedd mi ñu leen di mën a mën a ñekk mën a ñama ñama ñamaxee si mbedd mi. non il faut nga seet affaire parce que mer nag dafay ama ah. en général da ngeen di mer tas sey man gis naa quarante mille filles yu nga xamante ne ni actuellement ni ñooy gelu gaa yi te attention boo génnee si sa sécuriser ñu la gelu gaa yi ngay doon gaa yi dañ lay jël di la fowe xoolal di la wan nag loo xamante ne ni naka sa nadul noonu la nga naan ah man yéex naa génn si sëy bi waaye sa faru sa jëkkër ju bon ji moo gën fuuf sa faru baax bi donc sëy bi balaa nga siy génnee na ko xalaat xoolaat ko segal parce que say moroom jaar nañu foofu tey fi mu nekk nii juróomi dërëm sax am na koo gis léegi si mbedd bi kooku noonu la doon nuyu tey juróomi dërëm bu ko gisoon tey gii nii ñu jox ko juróomi dërëm pour mu nekkaat si buum day nekkaat si buum ba mu jot tolloo gis nga ko jigéen la rafet na jekk na loolu la waxoon waaye ba tey gii nii ku am téeméeri dërëm yéeg ko wàcc ko.

génnal sama kër loolu dala nekkee. waaye waaye xaar naa fa ñetti doom damay ëmb ay doomam sax mu may génnee ak wàccal sama lal fii maa ko moom puusal fii bul yàqali xool ni nga toogee ci sees bi. waa ji day màndi. màndiwul tuxul yàlla loolu moom yàlla dimbali na ko ci tuxul naanu tuxul naanu te te te ku gëm boppam la ku day liggéey rek jàmbaare si liggéey moom. ok loolu neex na si moom waaw. jàmbaar gi mu jàpp waaw jàmbaar la moom bañkat yi. ak lan. tuxul naa ak leneen lu la neex si moom looy fàttaliku benn bés mos na ñëw jëndal la benn chaîne benn affaire benn. bii cere woon fii Sénégal yor place yëmbal la nekkoon yor fa or bu xonk coy palaasam mosuma see takk jaaru baaraam lu ma fa takk dama kaa jënd te sama papa laa koy lépp lépp seen kër damaa jaay lépp lépp seen kër ndax njëlu kër gi. yow yaa yaa yaa gën a financièrement ou moom moo gën a famille moo gën famille non non leen riche ok mais waa ji est-ce que kii bi baax na affaire bi baax na ah parce que nag yéen a. am na ñetti doom. Ah, ak ak ak yow. mais taxul affaire bu baax <laughs> am ñetti doom taxul affaire baax de. en tout cas daal ñoo doon jaamu est-ce que doon na la yóbbu système si yàlla. yooyu doon jaamu yàlla daal. non ndax man na dëggantaan ndax nga ndax ngalaab bi doon na ko téye bu baax. aywa yow bàyyi ma <laughs> ah, que ah, da dama damaa woor man kay fi mu ne nii xam naa dafa damay jóge fii rek daal di kii eh, mais mais waxal quoi parce que am na loo xamante ne nii sincèrement dégg naa bu leen tax a génn si sëy quoi. soit da ngeen di am keneen fi ngeen ko aale. man moom moom amul sax problème boobu. problème boobu moom boolewul. non non. mais problème bi leen boo boole ba nga bëgg a génne si affaire bi moom moo bëgg a génne si affaire wala yow yaa bëgg a génne li ma dund moo metti man moo tax ma doyal sëkk te ba ma yàggee damaa yàgg jël décision da toujours samay parents duñ ma sax li jël moo tax nag décision bi ma jël ko jàkkaarloo ak sama papa ak sama yaay ne leen da ngeen di sonn su ngeen si waxee dinaa tas su ngeen si waxul dinaa ut ay nit ñu jàpp si sëy bi tas moo tax ma dem si imam ba dem ci seeti quartier ba wax leen ko léegi nan la la naxee ba génne la bitim réew dafa xëy ni ma dangay dem Sénégal boo demee Sénégal nga toog foofu xale yi xaw a dallu tuuti ay 6 mois yooyu 5 6 mois yooyu après nga ñëwaat fekk boobu teel sama séjour ba mu jeex nangu ko renouveler moom sama garantie Sénégal sax moo koy yor nangu ko bàyyi ak man su ma su ma amee lu may fu may dem wala lu ma war a def it daf may compagnie ba foofu jox ma ko ma lijjanti li may lijjanti ba pare dellu même su ma compagnie su ma dama koy jël. dem suma ñëwé ñëwee delloowaat ko duma du ko sax té duma ma ko sax té légui mu mu fexé nga mu yobul ba aéroport dig le argent de poche. daf ma ka dig ci kër gi daf ma ka dig ci kër gi mu né ma am na xaalis bu ma daan jël ci yow ta la tol soy dem dina la ko jox jël na la appartement so démé 6 mois dina la jënd ya xalé yi nga ñëw fekk tam ngeen ba paré fo kër ga sax appartement bi sax do fa def ay 1 mois yoyu parce que defar na këram bu pare instant yi këram mi ngi tege mi ngi tëje ndekete moom moom décision dafa jëloo ma ma ñëw dafa jëloon décision ma ñëw toog ci si këram ak xale yi léegi ma ñëwee yaay maa ngi ko dégg mu naan kenn fi jël appartement ndax weer ak morom ji dafa jege mais liw ma lijjantiw ma sax loolu ma wax day dugg fii génnee fii amul lu ñu may wax pour mu metti ma garaawul ma. moom dafa nekk néegu magam. bi nga ñëwaatee bi nga jëlaatee bi réew tamit néegu magam nga. waaw si néeg bii néegu magam boobu magam bu jigéen boobu dafa amaat keneen doom moom néeg ba dafa xat xajul góor la ak jabaram dañoo génn nekk te moom am na këru boppam pare na. te am na këru boppam mi ngi tege benn emprunté bi bu muy liggéey bi ci kooku moo nekk si kër. yow xam nga jàmbaar dëggantaan nga may wax góor yàlla dëggantaan nga may wax il faut wax say sikk sikk nag. góor yàlla la. dëgg ko man la jàmbaar say sikk non da nga il faut nga wax say sikk sikk yow tamit. nga jàpp si yàlla rek. sama sikk man duma ko mënuma ko wax moom moo mën a toog wax ne lii lii laay dund ak moom moo ko metti moo tax mu moo tax mu may def moom mës na wàcc ñëw fekku la kër ga. masul am fu may dem. tere na la daan nga julli jàpp moom sa di jàpp ak julli bëggoon koy def. doomu jullit laa dañ koy ñëpp ñooy ànd. mosu leen xuloo ndax da ngaa war a jullee. déedéet loolu moom mosuloo bitim réew mosuloo ak keneen dem feet boo xamante ne moom d'accord ci. bu ma juddoo ba tey xaw ma fu boîte fête mosuma see teg sama taal benn yoon laa si mos a bu may ànd ak sama benn xarit te boobu xaaju ma bay sëy xaaju ma bay sëy te jamono ñoo bokk barki dem laa koy fàttali sama xarit day ree bay bërëm. yow boo ko daan xas lan nga koy xasee bu ngeen daan xuloo bu ngeen daan defal. dangaa bon. moom mu ne la. sa xol bu bon bii laa koy wax. yow moom it mu ne mu wax la lan. mu ne ma su ma la fekkee foofu balaa moo ñëw ma daaw tëj buntu bi. nga nekk si jàpp sama ñaam bi. Hmm, d' accord mais problème bi gisoo ne mën nañ ko réglé. kenn mënu ko réglé ndax xam nga ko doyal. yow da nga jàpp si da gis keneen dañ laaw am na ñu ñu diggoon ay sëy bi waaye ba ñu bàyyi seen sëy ba dem dugg ci sëy bi. man maa suur góor ndax jëmm ji déggoo ma de. góor moom nekkul a suur moom. góor ak yi mu àndal de. góor de ku ne baax na la sa papa ji a tax. ñu ngi koy baay bi la jur a tax. may hmm. wax xale jigéen yi amagul jëkkër ñi ngeen di waxanteel wala ñi ngeen di liiwanteel ay naxekat lañ ay warkat lañ gëmuñu dara seen xol yi baaxul dañoo iñaan lii laa leen di wax ngeen def très attention ak góor yi donc euh, man dañu naa attention ak góor euh, baaxuñu de euh, gars yi d' accord ñu ak yow ah. ah ah waxu fi dara de ah. de c' est ça gars yi d' accord ñu ah oui ah? ah, man de dama leen a boole tam. man mi nga dama bokk dama fi nga dab moo baax. est ce que ah mu. waaw su ma la déggee si wax. daa mel ni sikk bi si yow la la commencé parce que ni nga wax ne da nga jàmbaar la góor yàlla la am na jom te nangu naa liggéey nangu sànq ba tey nangu wax sa sikk te nangu loolu moom daanaka mën naa ne yow problème bi si yow la commencé te boo na góor ñëpp man d'accord ma si. Euh, merci beaucoup maa ngi leen di nuyu ah, ku nekk ci turam ak santam euh, man en euh, du ma du peut-être abondé moom ci ci ci sens su ñeneen ñi ñuy quoi je vais d'abord tout simplement commencer par euh, dire qu'en fait c'est une femme bi nga xamante ne mais à à l'entendre parler on voit que c'est quelqu'un c'est c'est quelqu'une une dame qui a qui a besoin d'être écoutée c'est-à-dire nit la boo xamante peut-être que dafa am naqar boo xamante que da ko yàgg denc ci xolam parce que ku dem ci ay waajuram wax ak ñom souffrance bi nga xamanteni mu koy dund aussi ci biir famille bi euh, réagir wuñu ou bien jappalé wuñu ko aussi wala nanguñu ko déglu man je me dis que lool ça fait mal au cœur et à un moment donné bo togué nga emmagasiner lool yeb sa biir xol aussi da ngay da ngay soxla génne donc c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a besoin d'être écouté et bo gisee lu tax mu ñëw fi peut-être pour man peut-être que dafa euh, dafa dafa wër environnement ba sonn kenn nangou ko déglu mu mu doora jël décision ñëw fii bon maintenant euh, la question qu'on doit se poser est-ce maintenant ñëw toog devant la presse wax wax ji c'est-à-dire xaawi sa sutura bopp non seulement et puis nga wax aussi si sa jëkkër est-ce que yaa ngi bàyyi xel bu baax ci conséquences yi par rapport ak sa njaboot bu ñu naree màgg ëllëg ban bët la leen seen morom yi nar a xoolee parce que aujourd'hui man yaakaar naa ne que kenn ñaanul yalla nga am ay dom aussi yo xamantene ne que bu ñu ci biti au lieu nit ñi am appréciation benen appréciation ci ñom amuñu leneen lu dul non amul leneen lu ñu leen di wax lu dul ndeysaan ñii de seen yaay bi mosoon na def li sen papa sen papa defoon na leen lii defon na lii sen yaay ou bien sen yaay aussi defon na lii sen papa donc est-ce que yaa ngi bàyyi xel bu baax ci conséquences yooyu noonu. et fuma ma d'accord léegi yow aussi mooy euh, fi nga fi nga tok di di clash góor ñi ouais je je me dis que c'est-à-dire ñëpp bokkuñu il ah. y a des femmes yoo xamante que say morom yoo xamante ne tey bu ñu ci ñoom aussi euh, seeti leen le contraire de li ngay wax nii la ñuy wax ci seen i donc c'est c'est pas une occasion pour toi aussi de véhiculer ce message là euh, aux jeunes filles qui sont là xam nga di leen ne non góor ñi bu ñu leen en fait dafay mel ni par exemple tey jii. yow euh, jaamu yàlla bi sax da leen koy xañ quoi parce que sëy aussi si jàmm yàlla la bokk ah seen avenir aussi mu ngi mu ngi dépendre si loolu donc euh, des fois il faut pas xam nga que sa problème kese nga nar ko exposer ba nar a créer ay conséquence dans la société voilà loolu laa amoon lu may wax quoi mais ma bëggoon quand nga tontu si question yi ma la laaj noonu. ci kii laay wax euh, ci sëñ Saare mu ne góor yàlla day liggéey loolu dëgg la mën na nekk góor yàlla di liggéey. ah mais tamit lu war ci këram du ko def mën na génn si biti liggéey ñu muy sëkkal liggéey di ko ak ñoom di reetaana ñoom bu ñëwee ci këram mel ni du moom mel ni gaynde loolu jabaram sax bu yàggee du ko gis jàmbaaram ak liggéeyam bu yàggee du ko gis ndax bonheur bu mu war a am ci kër gi du ko am kontaanu mu ngi koy merloo loolu moom sax dafa baax naan jàmbaar la mi ngi liggéey mais moom bu yàggee dootu ko gis moom dafa baax di wax loolu question bi ma koy laaj mooy ndax moom bi mu koy takk muy nekk xale ndax moom feesoon na dell nekkoon na xale bu ndaw mu jël ko ndax parents yi dañuy topp ba ci loolu ba moom mu ñu xuloo euh, parents yi ndax mère yi dañoo fonk loolu ndax moom bi muy nekk xale jëkkëram di ko takk ndax matoon na xale feesoon na dell daal ci bi mu koy jël loolu laa ko doon laaj. waaw su fekkente ne euh,

nit ku nekk rek lu mu xalaat rek moom xëy na loolu la gis wante moom yaayam de lu ma sikk sikku kon saa bu jëlee téléphone di waat sama jëkkër daan ko moom da jàmbaar la kër gi de moom dafa set taw dañ faa set jeeg lañ ci kër gi moom de moo fiy balewaat kër gi moo fiy fobeerewaat te moom doo moo fiy togg lu neex dafay wax ni ñeneen ñi ko di ko dégg di mer moom de moo fi fóotal sa papa moom moo fi moom fi fóotal ak beneen doomu magam moo xam dafa gaañu woon tamit mu ne ko moom de moo ko fiy toppatoo moo koy buy dem jàngi moo ko yoxaat dafa yaatu affaire yooyu moom da koy wax yaay waaw dara nag xamante ne nii yaayam da koy wax mu ne euh, ndax da war a encouragé nit ñi pour ñu mel comme yow quoi. soo gisee mu wax loolu tamit li may dund dama gis ñeneen dama gis yeneen jigéen yeneen yoo xamante ne ñoo bokkandoon nekk Europe dundul sax mën naa ne lu gën a pire li may dund te ay góor ñoo leen koy teg seen jëkkër ñuy dund lu metti ñenn ñi da di jaral di def yenn yu metti ñenn ñi di ñibbi si di toog ñenn si di def yeneen ak yeneen yu doy waar sax waaw loolu moo tax ma ne ma bëgg a généraliser ne góor ñi ko mais kon naa wax majeure partie bi mais ñi ëpp li ci ëpp nag li ci ëpp. ci góor ñi. kii nag dugg na si fi ma euh, fi ma gën a bëgg nee na ndax affaire bi kii woon na. keesoon na waaw moom baax a baax a baax. ñun xamuñu si waaw man maa ngi ciy sant xam dara te seedeelu ma leen ko laa koy seedeel. ak moom moom xam na. kan bañ xam. <laughs> ah ah, ah. na leer. dellu waaw. loolu moom sa waaye moo ci xam dara euh, mais euh, toujours rek ñu xuus euh, dugg ci waxtaan bi di fàttale nag fukki minute moom moo ñu dese si émission émission mi tudd amul bëgguloo dara na bëgguloo dara déedéet léegi ba léegi bëgg nga ñu ne publiquement affaire bi bëgguloo ñu giree ko nañu ko wane ñëpp xam ne yaa nekkoon def émission ñun ñu nëbb kanam gi ok d'accord waaye nag soit am nga loolu nëbb ah mais nag euh, comme li nga rek bis ñu nekk yàlla nga koy seetal parce que moom moo ñu gën a xam ñu ma gën a dëgg suñu bu nga xool li nga jotee ak sa borom kër ñun wax dëgg yàlla euh, xamuñu dëggantaanu dëggantaanu problème bi mais euh, ni mën expliquer rek ak ñun ñoo xamante ne ni dund nañu ak ay soxna yor nañu ay soxna souvent dañuy génne di véhiculer message boo xamante ne jarul véhiculer maanaam loo xamante ne nii si nekk la war a yem ñu génn ko ci biti si koo xamante ne nii dóoru la ndax daan na la ba génn la bitim réew pour nga ñëw c'était pas pour divorcer moom dafa la ko dafa bëgg divorcer. moom waxu ko moom xam na ni moom su ma bàyyee du amati jigéen ci àdduna moo tax mu jàpp si nii. say morom waxoon nañ ko ñu am ay jigéen yu leen dàq yu leen dàq sëy na. say morom waxoon nañu moom moo la gën a xam ne su ma am jigéen. léegi yow est-ce que nga. ma ko mën a muñal doomu aadama. say morom wax seen jëkkër yi dañoo ut yeneen yoo xamante ne ñoo leen gën a rafet ñoo leen dàq a mën ko am. sa yi nag waxoon nañu loolu. non sincèrement sa morom mais est-ce que yow demuloo ba da ngaa naagoo si sa sëy def loo xamante ne def loo te yàlla rek tax boo ko fóotalee parce que nag attention léegi fóotal jëkkër léegi kéemaan la jabar bu fóotal jëkkëram mu ngi mel ni rek ñaari train bii retardé ak bii ñëw heure ñu jël bii ñëw heure di koy tànn fóotal sa jëkkër léegi kéemaan la toggal sa jëkkër léegi kéemaan la tegal sa jëkkër ataay léegi kéemaan la kéemaan la kéemaan la kéemaan la kéemaan la ay lu bëri yoo xamante ne léegi boo ko defee dañu lay wax naan ni xewe na est-ce que yow da ngaa réer si vingt-et-unième siècle bi ñu nekk nii maam Jaara Buso ak nga xamante ne mooy maam maam moo Anta Sali Mbàkke nga xamante ne mooy booy juru Sëriñ Tuubaa ba téye woon sa Bau taw bi taw ci kawam ba mu sëbët eh, neri, ndeer yi xam nga ñooñu nga xamante ni ñoom ay sëykat la ñu woon est ce que le vingt siècle bi moom moo la nax nga dem ba naagu ci li nga def foog ne da ngaa def lu kenn deful de taxul naa est-ce que du yow sëy bi nga sey da ko def ba pare nga yaakaar ci fay ñun sa jëkër war la tout temps dela ah, bravo dafa nga photo nga ma bàccal nga ma passé nga ma xam est-ce que da ngay ndamoo lool nga xamantene ni waref la su digënté yow ak sa borom kër te yalla wax ci jigéen su fekkante na amna ku muy jaamu ci kaw suuf jëkkëram lay non loolu du ma ko def dinaa ko ndax damaa war lu ma war la te xam naa ne lu ma war la. parce que man man dégguma la fi nga wax dara lu extra am na appal yaa ne la may fóot may passé may defatuñu loolu sincèrement jigéen ñi paaseetuñu fóotatuñu te dinaa la jigéen dafa nekk remplacé gis nga sama waa ji fi mu nii ba jabaram demee léegi ça mois ak léegi am na ku koy ku koy ku daan lalal ndaw si moom moo koy lalal ku daan fóotal ndaw si. mom mo koy fóotal ku daan passel ndaw si mom mo koy passel four ba daan togo ceeb mo togo togg bi donc jigeen yi jeegi legi ban njëriñ lañu am si keur bu njëkkoon bo genné si keur goor gi daf ko wara a normalement legi machine à laver mu ngi ci biir keur gi affaire bi du togo affaire bi mu ngi ci biir keur gi ban njariñ ngeen am lu laaj bi sincèrement legi remplacer jigeen dafa yomba ah. parce que kat bi mom moy faute machine à laver bi wala wala affaire yi wala wala wala wala ay affaires yu bëri mën nga dem jëndi sandwich ñuy jàng si mbedd mi ngi nekk léegi yéen est-ce que xalaatu leen ne lu romb remplacé ngeen nekkoon nga bitim réew gis nga ba bagage yaa fa sa waay boo ko toggalee mu lekk boo ko toggaluloo mu lekk donc jigéen est-ce que pekkatul valeur est-ce que léegi jënd si sëy njëriñ boo ko toggalu du lekk dangay feebar bay lam na sax mu lay football naan la jugal mais loolu est-ce que du moom mooy sa sëy yow est-ce que du yow loolu daf la war ci diggante yow ak moom su dee benn soxna nga est-ce que bëggoon nga mu am ñaari soxna. bañ a ay jullit lañ de ko bëgg bañ bëgg su ko defoon tamit garaawul de ma géré ko rek. voilà léegi ñi nga xamante ne ñoo nekk bitim réew ñu ñëw foofu jafe-jafe ya nga xamante ne gis nga ni jigéen ñi ñu ngi fay dund lu yéeme loolu lan la loo ñu si mën a wax. balaa may àgg foofu am na loo wax léegi damaa bëgg ñu dellu jigéen remplacé ko yomb na léegi déedéet ah, nit mën nga def si def si moom loo xamante ne nii pour li tax li tax ma wax léegi naan moom du ma mës a bàyyi naan day dem tekk ji ma fas ah. moo tax ma wax loolu kii nag ñëw dem rëg-rëg boñaawam ah boo xamante ne ni moo ne ceex waa ji dugal ko ci maaman ne ko kii bitel bi tank tidji wo ko rek waji du du du xalat benen jigen du yow yalla tere lan moy sa maama dem si maama ah. dem na ka defaral ma li wala ah. ki beug wala ki beug ah. man suma beugul mo xam affaire am la ndax xalat na am ak mom ñetti doom su may sëy damay sëy man perte man da am naa sama ñetti doom su sey sama doom yoy lay sey lu ma mënti defit garaw doom yoy lay sey ñoon dañoo ma fa bay ak sama ngor boobu tay kon euh, mbokki internet yi nga xamante ne nii euh, yéen a ngi seetaan Sénégal TV yéen a ngi toujours seen émission amul tabu mu mel ni que mbir mi war nañ ko seetaan dañuy ndeysaan gisante ngoro ko ba muy bees soo ma owulee téléphone ma jaaxle suma ma la owulee nga jaaxle ñuy rëbbante di dàqante di nobante ba ñu sëy bu ñu sëyee fan yi njëkk yi do nelawulee du ma nelaw fo jaaxlee ma jaaxle bo feebaree ma jax ma ma feebar ñu dem ba def 1 an 2 ans affaire yi commencé di changer. mu dem ba un moment donné ñuy wax ne doom yi moom motax man may sëy mu melni ko couple bi ñi ñi and ànd ñom taxatu ñu dafa am beneen affaire bo xamante ni moom motax ñi ñuy ñu ñuy est-ce que sëy la sama waji ji waxoon ne boo si xësee bu dugg rek ya nga dugg ci benn bombe bu nga xamante ni bombe à retardement la mën na exploser sa kaw à tout moment. mën na la indil ay jafe-jafe parce que lu ci bëri ay jafe-jafe la ñuy gis si sëy après 10 ans après 15 ans muy am ay problème léegi doomi ñoom ñoo tax ñuy sëy mbëggeel ba dafay mel ni dafay deñ mu am tamit loo xamante ne dañ koy wax góor ñi ñu ne lu ma lay gën di bëgg rek mu mel ni que yow sama mbëggeel dafay gën di wàññeeku si yow est ce que yow da nga gis ne waa ji dafa am ay gel dafa am si leneen lu mu nekk tey fo fokkat la xamee bu ko fokkat mais def na ma ñaari affaire yoo xamante ni ay jigéen ñoo tax xamee mu ko foofu dëgg neexee rek xamee mu ko mais def na ma ñaari affaire yoo xam te ay jigéen ñoo tax mu def ma xam ne su ko defoon ci beneen jigéen dina demee neneen yàggul dara mooy fan yi muy bëgg a dafa kër gi dafa nekk ci kaw ak ci suuf mu jël ma ak xale yi ne ma yéegal ci kaw te bul wàcc toute la journée desal ci kaw ak xale tëj buntu yëpp des ci suuf te jigéen bi moo la doon jigéen bi moo fa doon ñëw tubaab bi ñu am doole mu tëj jabaram si kaw ndax. tëj ma si kaw tëj man. day bañ ñu gis fekkoon man kase garaawul de jël sama bagage yi nekkoon foofu ay sama ay daal ak yi nekk foofu yëpp jël ko ak bagage su xale yëpp mu yéegal ko ci kaw bàyyi kër gi si suuf. pour wane ne moom jigéen bi nekk fi. moom loolu la doon duru man su fekkoon man kase la ko def loolu duma sax toog ba di ko fàttaliku mais su ma ko fàttaliku loolu daf may daf may metti ndax xale yi. ndax se dañ kaa war a def wala duñ ko war a def koo si waxtaanal après dix ans après quinze ans yu bon yi rek lay fàttaliku yu naxari rek lay fàttaliku yu naxari rek yu naxari rek da nga doon nekk looy jooy sa kanamu doom yi lu bëri ñu lay gis ngay jooy. jooy naa ba taay am na ci benn bis boo xam te ne sama doom bu am quatre ans moom mu dama ko jëli ci école mu waa ci ñëw fekk papa mu toog noonu ci côté buntu waañ xale ma jubal dugg ci biir sa bi man ma jubal sama ma summeeku génn papaam commencé teg ay saa xaw sa ñëw léegi xale bi di jaabante dégg papa ji di wax mu xam mu xool kan xale dafa dem ñoom dañoo dem ba ragal seen papa su seen papa duggee si biir kër gi rek seen fit yi day dem dalay dalay leen ñii kiiwatuñ nekkatuñ ak seen bopp normal daal da gis ñuy mel ni ko affolé yooyu dama obligé jël leen nekk ak ñoom si benn néeg di foo ak ñoom nii bu xasee bu dugg si kër yi xale yi dañuy sonn dañuy sonn xale bi jour boobu dafa jékki-jékki 4 ans la am ne ko papa ci tu parles beaucoup yuux ko ne ko li ngay wax lu bëri yow boo ñëwee si kër gee sama yaay day sonn 4 la am di ko wax loo baal sama yaay nga foo toll nga koy juuxu di ko dóor danga dangaa bëri wax xale bi wax ko lool ba pare di ren wàññi di wadd di jox rek mu jug bëgg koo dóor ma kër xale bi dawal moom toju ma mu taxaw ci ci bunt bi naan boo amee sept ans wax ma lii ma def noonu jaar fu ñaaw ma rey sa nangamtaan ma ne ko yow de yaa ngi nii gisal nga sa bopp 4 la am wax la kii bu amee 7 ans wala mu am âge bu ko ëpp kon bu boobaa dina jàkkaarloo ak yow jour boobu xale bi gontuwaatul école. li sa morom yi di dund foofu loo ñu mën a wax lu metti lu doy waar loo xamante ne sax sàkk euh, soxla nañu ndimbal. bëri yi foofu am naa si ay xarit dañuy dem di jaay ji seen bopp sax. jaay ñu sax seen jaay ñu seen bopp. nañuy dem di nëbbatu ji di def ji leneen loo xamante ne seen bët bëgg ko. déedéet. lan la ñuy def lu métti dañuy sonn. sonn métti hmm. dañ leen di sonal. sonal cest à lu bon rek lañ leen di def parce que dañ leen di dóor di leen maltraité di leen def lu metti di leen bokkante ak tubaab yeeg yooyu. loolu moom mooy loolu. loolu hmm. moom waxatuñ ko. loolu am na. waaw loolu moom waxatuñ ko. am nga ñoo si dundal ñoo xamante ne dund nañu loolu. seeni jëkk i daf leen di bokkante ak tubaab yi. pour di si am xaalis. ah wóoruma moom xaalis moom dëgg yàlla wóoruma. lan mooy waral loolu yow pour yow. yeneen jigéen dañ leen di bokk ak tubaab ñu góor ñi ñooy dem uti ji tubaab. waaw mbokki internet yi euh, yéen a ngi toujours seen émission amul tabu euh, merewuñu kenn nag xasuñu kenn euh, xarabuñu kenn waaye tamit gërëmuñu kenn dañu bëgg a wax rek ne ki ñëw exposer problème am si dañuy sukkandiku pour def sunu émission bitim réew dafa doy waar bitim réew dafa metti bitim réew dafa bari stress xoolal néeg bi han ah, ci bir fi la douche bi di nek fi la ñuy weere fi la ñuy paase fi la ñuy fóote fi la ñuy togge fi la ñuy def lépp gisuloo bàjjël gisuloo yumpaañ gisuloo tànk gisuloo kenn ñaar rek ak seen problème mère bi muy jógee ci service ba mom lay ñëw yeen ñaar ngeen nek si kër gis nga nek bu amulé aération gis nga nonu may def non bo fi talé gaz xet gi des ci bir mère bi non lay déssé ci bir kër gi kër gi fay dem ba affaire mère rek mo fay am gis nga kër Europe bitim réew mère rek mo fay am xam nga est voilà l'énervement est permanent donc toujours dañuy mer donc nuñ jëlaat congé suñu xol yi euh jigéen ñi aussi ñu bàyyi leen ñu exprimer wu euh, famille aussi ñu génne ci digënté euh, euh couple yi euh jigéen dina mer soupape moy li ñu doon wax non ñu bayé ko mu exprimer wu comme li Tidiane wax sank dañuy am droit exprimer wu parce que dañuy bëgg wax li nekk seen xol parce que ñom nak wax deug yalla euh jigéen ji jëkkëram ko am fula la mais fula bobu dafa dem ba daf ko naxari jigéen bi jëkkëram ku bëgg njabootam la mais dafa dem ba loolu ni muy conditionné njaboot bi di ko conditionné ba doom yi rabal ragal ko moom dafa dem ba loolu daf koo naxari léegi moom dafay bëgg xam nga fippoo def comme yeneen femmes yi nga xamante ne ni dañuy yuux seen jëkkër dañuy tàcc seen jëkkër te jëkkëram mos ko may loolu donc benn moment donné dafay bëgg dund lu ni mel donc loolu mooy peut-être sama xalaat li mu nekk di wax actuellement ni ñu may ko ko nag il faut ñu bàyyi leen ñoom ñu exprimer waaye nañu xam ne bu ñu génnee affaire bi ba mu tas si ëtt bi ñi ci warul jot jot si nii lay demee day mu nekk ay la yéwén nañu fexe ba mu yem si néeg ñii sëy ba ñu màgget nañu bàyyi xale yi ñu sëy te génn si sëyu xale yi te xam ne ñoom amoon nañu ay problème si sëy te amul benn sëy boo xamante ne nii dañ koy sëy te du am problème kon ñii may déglu ñii may seetaan ñuy toog sama wet ñoom ñëpp amul ku nekk si sëy te mosuloo am problème si sa sëy kon man li may digal soxna si nii mooy mu toogaat jël congé xalaataat ole kon muy divorcé waa ji tamit jëlaat congé xalaataat ole kon muy jël yeneen décision yi parce que waa parewul pour tassax soxna ci soxna ci mom mo bëgg génne ci sey bi té du lu ma ko conseillé mais nako conseiller conseillé waat mu jël congé reposer xelam reposer xolam ngir mëna a delluwaat si sëy bi parce que kat sa jëkkër ju bon ji moom moo gën sa far wu baax wi kon amna ño ñoo xamante ne nii am na lu ñuy laajaa si ginnaaw ñu daal di laaj mu tontu ñu tej émission amul tabou kon soxna Fasal poser sa question s'il vous plaît. asalaamaaleykum yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu Euh, question bi ma ko doon laaj xam naa Ousmane jëkku na ko kii posé na ko mooy est-ce que bi mu jógee extérieur ma ngi kii nu ñu koy waxee ma ngi seen kër wala kër papam wala kër jëkkëram mais actuellement mu koy laaj ndax jëkkëram moo ngi envoyé euh, argent de poche wala ak dépense est-ce que jëkkëram mu ngi woo téléphone ñoo ngi communiqué ensuite mu koy posé beneen question mooy puisque moom jëkkëram kese ñoo dëkkoon est ñoom ñaar bu fekkee jote na ñu jëkkëram dina jóge fee ne soxla ko au ñëw rek forcé ko walla nan lay demee daal salaam. waaw kii question bi dégg naa ko mu ne ba xam moo ngi may ñoo ngi déggante. waaw ndax lay yónnee wax yooyu ndax ndax si lal bi ndax ndax bu ñëwoon xam lan lal bi moom dafa bëgg lal bi nag ci baat a affaire lal la léegi lal bi loo si lal bi nga ne. dégg naa leen wàcc bi. Ah. wàññi ñëw xëy na soxla un jour julli. Hmm. Euh, ñëw forcé wala nan lay demee. ah d'accord brutalisé waaw. lépp ba mu jógee foofu ba léegi may ñëwee seen kër wàcc fa wàcc nekk ci néegu magam am màggal bu tombé comme man suñu kër gëj naa fa 4 gisuma sama ay parents léegi ma tàggu woon papaam ak yaayam ñu ne woon demal seeti leen nga nuyu jiwaale leen bi ma demee nag ba tey jii après delluwaatuma seen kër. mais dépp ba ma ñëwee Sénégal ba tey woowu ma lekkuma dara ma woowul sax ay xale man moom loolu garaaw si parce que tàmm naa ko loolu moom nekkul dara si ma ñàkk woote wala ñàkk a nekkul sama problème jigéen laa euh, duma joteeg sama jëkkër ba tax may téye sama bopp ci moom wala may toog. da ngeen bëgg affaire bi nag foofu moom bu fa yeggee ngeen jubboo. <laughs> loolu moo ñu war parce que ay jigéen lañ. <laughs> loolu moo ñu war du xaar muy ñëw. du xaar muy ñëw damay def li ma war comme ni ko jigéen ñi defee <laughs> waaw seen mer-mer loolu bokk si boo leen utee ñu ut la boo leen utulee ñu ut la nee moom day kii waaye man sama waa jëlee moo ma bëgg a jaaxal moom léegi affaire au lii rek lay waxtaanee <laughs> léegi euh, waaw Awa sa question. asalaamaaleykum soxna si ginnaaw bi ma la nuyoo sama question mooy dama lay laaj rek ndax premièrement bi moom bi mu la takkee takk.

manam ba am na ko doon jema a séparé ci digënté bék yooyu man mom loolu du ko sétlu nek ma jigen bo xam damay sétlu ndax bo sété rek da ngay gis so xolé tamit da ngay gis bo déglo dégg lool motax yu bari duma ko bëgg di sétlu damay nek ci lima ma war rek bu ma ci amé lu neex baax na ma ci amé lu naqar tamit baax na bi mu nang bi yaayam jëlé lal bi tamit daf mané ne jëndoon sama yef la maka jëndoon sama yaay amna droit jël ko waxaatu waxaatuma taman def nañ ko presque lu tolloog deux jours trois jours ma soog see débat sax ma soog koo laaj ci la ma tontoo loolu ne ma maa ko jëndoon sama maa ko moom ma daal ne ko kon baax na voilà mu mel ni que ñu ngi bëgg yegg ci suñu euh, terme émission émission amul tabou euh, tay nak dana non gan ko nga xamante ne ni euh, bitim réew la nekkoon di dund ak jëkkëram dund fa lu metti ci li nga xamante ne ni loolu la wax waaye nak metti metti yi mooy mënuñu wax li nga xamante ne ni moom la ko jëkkëram def ci loo xamante ne ni lu convaincant la man de convaincre ma man dama jàpp ne daal jigéen la boo xamante ni dafa mer et puis stress jàpp ko xam nga mu war a noppaloo ko mu war a jëlaat congé xam nga noppal xelam noppal xolam après kiif daal di nekkaat ensuite ma jàng si moom confiance parce que nee na jëkkëram defal na ko loo xamante ne ni du ko bàyyi di mu que bu aussi feeñ na ci biir émission bi koo parce que nag ñun tey ab invité

ñu ci jëm daal lu ñu mën. ay jigéen lañ moo ñu war. Ah. te jigéen dafa war a xajal. waaw suñu yaay daal li ñu santoon moom góor góorgóorlu nañ ci bu baax soo déggee cadre maanaam ma ne du ma bàyyi mooy que ni li may dundal ak moom nekkul ne affaire sëriñ la wala dara dama xam ne rek def naa ci moom loo xamante ne nii. pour mu bàyyi ma dem seeti ci keneen du yomb. foofu rek laa ko teg. ndeysaan euh, mu mel ni que euh, xale bi wax na loo xamante ne nii lu am solo si sëy la euh, sa naqab jëkkër sa biirub jëkkër. sa sa waxande jëkkër gis nga ñetta yii nii su fekkente ne ni mokkal nga ko naxa bi mooy maanaam paccax bi paccax bi su fekkente ne organiser nga ko bu baax comme ni nga xamante ne noonu nga ko war a defaree loolu moom sa waaye fu mu dem day dellu si biir bi mooy maanaam lekk gi lekk gi su fekkente ne ni toppatoo nga ko comme ni nga ko war a toppatoo fu xiife rek fu mu xiife rek xelam si yow lay nekk waxande bi mooy ay yëreem ngay toppatoo ay yëreem convenablement yooyu aussi su fekkente ne ni alors toppatoo nga ko aussi fu mu nekk rek xelam si yow lay nekk ak toogin bi tamit ak taajin bi tamit xam nga ni nga koy taajeek ni nga koy kiiweek yooyu léeg-léeg nga toog jël benn fàllu sër bi tas ko def ko ni jàkkaarloog moom di ko xool di ko di ko dóor affaire yi nii di ko comme kuy damee xam nga donc boo defee loolu moom day day day déconcentré wu xam nga bii bu ñuy dugg sax moom du ko yëg bali mën nañuy def nii di dugg te moom du xam ne bal yaa ngi dugg donc yooyu ay feemi jigéen la ay salañ-salañ la yoo xamante ne nii alors jigéen daf ko yëg waaye tamit ku jeg ko da baale parce que tamit léeg-léeg ñoom dañuy xam point faible lu góor yi ah ba pare téye leen foofu ne di leen maltraité xam nga maanaam dama yaakaar ne maltraitance boobu noonu feeñ na si mbir mi. am na loo foo jàpp sa jëkkër foo xamante ne nii alors mooy jiwul demul uti ji beneen góor yow tamit nga xam ko boo ko bëggee téye rek foofu nga koy téye duñ ne nag. man li ma koy laaj mooy comme ça buy def ay affaire cuuraay takk fer def si ñuy jaar jaar satis comme ça bëgg daal nga gis si kanam ak bëgg moom day toog rek moom du kontaan ba dara. ah bañ a bëgg. jërëjëf jërëjëf ko defal mu bëgg. bañ a bëgg. Ah. mais comme ça li nga wax tout le temps day mer rek di pour affaire yooyu. waaw ah, loolu moom day bëgg moom wax dëgg yàlla. mais mais mais ah, soxna soxna si. man sama sama ibaada bi foo waxee affaire yooyu rek waxuma joxuma la par yow léegi yow léegi fu affaire yi jógee rek nga jóg xanaa. kii man jaaxal na ma daal <laughs> waaw may ko may ko may mayal ma ko. ma ni ma ngi bàkku naan jëkkëram bu ko bàyyee dootul amal beneen jigéen nangam nàngam nangam yooyu noonu pourquoi moo jëkkëram ñu nekk euh, jëkkëram di ko acc kaw di fat ay tubaab kon na bàyyi xel foofu noonu ndegam jëkkëram doon na def loolu rek mën naa am keneen ku ko gën moom ok. te dafa wax lu am solo tubaab yi dañoo am ay monot am ay liif am ay sibari dan lay yeew xoolal dan yeew si lal bi di ngeen di seetaan loolu yeew la nii xoolal di lay tuur ay liif ba sa yaram bi di naaj te am na ñoo xamante ne yooyu rek la ñu bëgg donc yow attention ah, sa waay international xam na bin bin xam na string loolu moom foog nga xam ko xam na nalli xam na tàlli yooyu xamagoo ko waxal waxal waxal ak ñi waaw. akam koo xam sax loolu nga wax moom da koo xam pire. ndax ki ki ko yàlla boole da koo xam te di ko defal loolu moom xam na ko bu baax te bu ko xamee ci man mi la ko xamee mënoot rek tubaab a ko defar waaye. <laughs> denc nañ ci yàgg nañu suñuy xeetu silib rek amul feex waaw loolu moom dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax soo gisee tamit ma ne ay euh, du amaat beneen jabar wala su ma bàyyi du ko gaaw a amaat nekkul ci cadre boobu sax laa ko teg. maanaam li may dund ak moom te mën ko kaa muñal yombul beneen jigéen di bu ñëwee muñal ko ko yombul de. voilà foofu laa ko teg. voilà tegum ko ci cadre cadre bi moom. dama ko pakate teg ko na dama ko mokkal macha allah. voilà donc euh, affaire bi war nañ koo war a mën a régler ah man toujours je pour que ñu régler ko mu régler wu parce que boo jëlaatee congé moom mu xalaataat njëriñ bi nga ko amal yow tamit nga xalaataat njëriñ bi mu la amal jàpp naa ne ñaari ñun ñu ñoo am problème ala rawatina stress bi nga xamantene ni mom mo am bitim rew donc euh, jigen ñi dañuy faral di wax baat bobu li ma ko mënal beneen jigéen du ko ko manal wallahi yéen a ngi nax seen bop jigen ñi sey rek lañu bëgg jigen ñi sey dong la ñu bëgg boko wédé nga laaj soxna sa nga xamantene ni tasoon na jëkkëram deux fois wala trois fois elle souffre bu gisee ku ku ku ko téyil buum bi rek. mu téye ci nit té dootu ko bàyyi abadan donc to ko euh, mënu lo ko xam soxna si lan ngay tejé li nga wax non ci né jigéen ñi sey rek lañ bëgg loolu leer nañ la sey rek lañ bëgg ku leen jappalé ñu sey ku leen tee ñu wa rawat na sama kalaaf gi. bëgg nañu sey ku ñu jappalé ñu sey bëgg nañu sey parce que yeen goor ñi sa ngeen dem ba xam ci loolu ci jigéen ñi xam nañu bëgg sey motax ngeen leen di leen maltraiter di leen def yenn ku ñu jappalé ñu sey rawatina ak man mii jigéen buy sëy nga koy def yenn yi di ko mbittal fu ne nga jaar fa ak moom terewul boobu ba tey mi ngi toog xam nga ni koo ko bëgg naa sëy ku ma jàppale ma sëy damaa am ku ma jàpp su ma demee tey ba taxaw bëgg bëgg di demande divorce mooy que ne damaa sës dama sës sës moo tax ma ñëw ba fii. mu mel ni que mu mel ni que euh, wax na wax boo xamante ne ni euh, wax bu daw yaram la. Euh, ñàkkut ba am na ñoo xamante ne ni euh, dañuy daje soxna su euh, bëgg a sëy dëggantaan ñu di ko maltraité mënuñu wax ne loolu amul waaye ñàkkul ba am na jigéen ñoo xamante ne dañuy dajee góor gu leen bëgg di leen toppatoo alors ñuy maltraité góor googu noonu comme ni mu amee ci góor ñi noonu la amee si jigéen ñi waaye de maa ngi leen di waatal maa ngi leen di giñal ne loo bëggul ñu def ko sa rakk walla loo bëggul ñu def ko sa doom warloo ko def rakk jàmbur comme warloo ko def doomu jàmbur donc euh, muy ku góor ki muy ku jigéen ki war nañu xam ne gannaaw bu leen yàlla euh, boolee si faratam ak sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc war nañu fexe ba dawalante yërmande mooy bi maanaam yërmande bi nga xamante ne moo war si diggante way dencante ñuy bàyyi xel si lu ni mel ku jigéen ki ku góor ki moom moo ko war a waddal dëkkal ko dëkkoo ko waaye nag ku jigéen ki bu fekkente ne woon na am na keneen ku mu war a jaamu si kaw suuf euh, jëkkëram lay war a doon lu mu si mënti doon rek mooy ñoom ñaar dañoo war a ànd

moom jeex na abadan bii moom dama dama dama see taxaw te loolu laay def incha allah bu neexee yàlla jël naa samay décision parce que bu ma mësaan wax sama yaay wala ma wax sama papa ñu may négliger bañ ma faale mais bii yoon loolu moo tax ma jóge ba Touba samay wàcc foofu lañ nekk ma jóge ba Touba bàyyi leen fa ni leen dinaa dem defal sama bopp nangam ak naam dem ci chef de quartier bi wax leen ko nangam mosul am kon ñoom war nañoo xam ne man taxaw naa si li ma wax donc euh, décidé na pour def lu mel donc xalaat na ci xool na ci nee du ci dellu ci ginnaaw ñu ngi koy ñaan nak mu dellu ci ginaaw parce que nak jàpp naa ne euh, mer la bu fekkente ne nii yàlla tere traité ko dafa weddi sëy bi nekkul ban genre góor ngay welcome ban genre góor ngay bëgg a nekkal. bëgg bëgg maa nekk góor suur naa góor. dafa teel nag 27 ans. billaay suur naa ko. ndax jëm ji su naagoo dara naagoo sëkk voilà donc euh, man jàpp naa ne ku mer la amal affaire koo xamante ne ni dafa stressé wu moo ñëw si sama plateau waaye nag euh, dinañu ko waxaat kon euh, lan ngay tëjee sa kàddu gu mujjee tëjal waaw loo tàggatoo rek baax na waaw maa ngi leen di tàggu Euh, émission bi neex na waaw neex na man de li ma li xam la mu mhm. li nga dund sa biir sa yow rek yaa xam te tamit jàmbaar nga tamit sëykat la ndax yow li nga dund nii ma gisuma benn jigéen si jamono jii ñu koy dund koo wax danaa la kenn du ma lay stress bi stress génnee ba tey benn jigéen bu ñu stress boo waxee ñooy la man góor du ma rey may perte. ndax góor su ma reyee man maay perte ak samay ñaari waajur léegi koo dégg loolu lay wax yow moom li ngay dund nii man gisuma ko ci àdduna bi moo tax du ma la conseil na soo toogal sa sëy du la conseil tamit ni la bàyyi ndax li ngay dund yow yaa ko xam mais tamit mooy loolu daal say ndax tey jii boo demee duggaat ci benn côté say doom bu yàggee mën nañu jël attitude boobu ndax xale moom xamul dara bu gisee mu tilté te di defee comme affaire violence affaire yooyu xale yi bu yàggee mën na ko jël ci côté voilà donc euh, euh, Fat Bintou euh, jàngaluma mako loolu en journalisme alors il faut laisser les deux cloches sonner manam warna xam. Ben pak rek xam na lañ ko waxe ben lay rek xam que pak xam am nañ ko la nous di waxe lay du pak que nous donc il faut que nga xam exactement parce que ñun wax mom rek que wax donc est-ce que amul donc dara ah. donc sukkandiku ci parce que man damay taxaw ci taxaway bi nga nous ni fa donc bi effectivement le son de Viviane là xaw ma ndax xam nañ ko wala xamuñu ko no stress boobu dafa révolté lu ëpp li nga xamante ne moom la amul tabu di révolté wala li nga xamante ne mooy émission na ma góor révolté nit ñi donc no stress dafa poussé jigéen ñi ne léegi ñoom dootuñu tudd stress waaye nag ah boo xamoon li si gannaaw no stress boobu noonu kii ko way li muy dund <laughs> wallaay <laughs> ah, ah, mo ngi si ñettel bi xawma ma bi donc boko defé rek da ngay dem di dem di dem di dem di dem donc man bu fekkente ni sa kaddu mu wax nga ko man ma tàggatu ak internet yi Sénégal TV ñu tej ñun mom bañ dalé du no stress bobu Viviane génneegu ko ñu dara wu lu ñew mën nañ ko encaisser lu ñew ñu tegoo ko nangu nañ lepp bu ñu jappalé won rek ñu nekk ak mom billahi ta yalla tax wa mais nak amul sens da ah milice bi a ci mooy mooy lan si italien désolé wu naa ci moom. désolé voilà donc euh, sohna si nena désolé wu na si sa way euh, amana ba tamit sa way bu déggee li mu jéem a bopam bu fekkente ne vraiment erreur bi si mom la mu parce que jigen nak Euh, mënu ko té ah. dafa mel rek xam nga góor moo naan pare naa ci pare naa ci mu pare mais sa waay bu laajee nga may ko avion may ko otara, raamal ko xam nga wayal ko o ñuy way ñëpp ñu gërëm ko xam nga nga deltuwaat ginnaaw su fekkee erreur bi si yow la nga def loolu yow it su fekkente ne erreur bi si yow la tamit nga deltu ginnaaw donc mbokki internet yi nga xamantene ne ni yéene nekkoon di seetaan seen émission amul tabu tey amul tabu bi beneen la woon si amul tabu yi di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu si beneen numéro amul tabu